wara nga genn sa combat sa digënté ak Mama Lamine depuis loolu fan nga tollu ci yeneen combat. ah may ngi ñu may wax adversaire sax mais xam dañu déggogul ak man ma nekk ci lamb ji nekk sama yoon dafa ay preuve kon damay xaar rek inshallah allah rabbi suma juwo gaay gars yi yalla adversaire yi ku ci melni kan ak kan. no gaay me may say musa ndo yeen say Ndoye yenn saa mais rek dañu wara a buñu bu ñu war nañ bëre waaw. gul wala num mu waaw yenn saa yi di nga di nga xaw a jubóo yenn saa yi mbër bi a rasu yooyu noonu xam naa dañuy seeti seen sëriñ ñi ba xam baaxuñ góor ñu jëm ci combat premier janvier diggante Modou Lo ak Boy Niang démb ñu gis ñaatur bi nu mu demee loo ñu mën a wax ci combat boobu waaw combat rek xam nga Modou Lo champion la Boy Niang la combat boo xam ñoom ñaar ñëpp liggéey nañ te le premier moom dans 15 jours wala 10 la boo xam te ne combat capital la ñoom ñaar ñëpp ñu ñaan suñu mag nag suñu borom may koy ñaanal ndam mooy lépp lu mu nekk rek ñu ngi si gaaw suñu doyen su amee suñu ndam la perte waa Parcelles la perte waa Cambérène la waaw. Modou Lo jógee ci combat digganteem ak Ama Baldé novembre mu war a ñëm ci janvier bëreeg Boy Niang est-ce que dina yombee noonu mu dugg Pikine ñëw war fa duggaat. waaw laa benn yombul mais comme li ma wax tout rek yàlla na yomb ci suñu côté yàlla may ñu ndam. <laughs> Modou Lo ko déggoon ci ay communication mu ne Boy Niang gën a naqaree bëreel Ama Baldé loolu doon amul waaw loolu xam nga waxu Modou loolu il faut ñu laaj ko mais man mi man man mi am damay seetaan làmb yaaga dem ci làmb xam naa ne gënul naqaree bëreel moom waaw man mi seetaan làmb xam naa boo ñaa gënul naqaree Ama Baldé ndax ñoom ñaar ay champion te ku ne am nga loo am sa morom amu ko am na ku nekk am na foo jaar sa morom jaar na fa waaw. ñu jëm ci Modou Lo Boy Niang premier janvier. waaw le di ñaanal sama sama frère Makan di ko ñaanal yàlla na si dugg bisimilahi rahmaani rahim jéem si alhamdulilahi rabil alamin de combat premier janvier moom feet la Gaston yàgg nañ tàmbal premier janvier mais nag mu ngi bëreeg Boy Niang mu ngi bëreeg mbër bu dangereux ndax boo xoolee dugg na Pikine duggaat fa dugaat fa mais Boy Niang nee na ko si nag rangoo ñu maa koy feral nekk na combat boo xam ne daal ñoom ñaar combat bu métti day doon combat bi dina am xeex dina am bëre waaw ah. ñu gis Boy Niang làmb ji dafa mel ni lu ci ànd ak xadar ndax gis nañ seen ñaari sortie signature yu mujj première bi gis ngeen nu génnee ba démb tamit mu mel ni dañoo xaw a am jote bu ndaw loolu est-ce que arrangement la. non Modou Lo moom yaakaar naa képp kuy signé ak moom il faut mu demee noonu mais xëy na nag Boy Niang stratégie lay teg pour peese Modou Lo mais yaakaar naa ñoom ñaar dem bañ dalante ku nekk xam na sa morom fu mu nekk mais daal lu ma la mën a xamal ñoom ñaar combat bi dina am xeex dina am bëre nekkul combat bu yomb. ndax Modou Lo dafa bëgg teewaat roi bi mais Boy Niang dafa bëgg a jël roi bi indi ko Pikine ndax da kaa soxla mais daal li ma la mën a xamal du yomb de du yomb si waa Pikine du yomb si waa Parcelles mais nag si waa Pikine lay gën a méttee ndax revanche la Boy Niang instant lu mu yenu dafa diis ndax revanche lay bëre revanche revanche lay bëre moo tax combat bi xaw a diis si moom mais daal ñu ngi ñaan yàlla que le maire gañ